d'abord man maa ngi tudd Ismaïla Sow nekk euh, président du conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal yàlla def tamit ma jiite maison de éleveurs bu région de Thiès ci biir loolu tamit euh, yàlla def na it ma nekk conseiller économique social et environnemental li nga xam ne aussi tamit moom lay wax damay wax may wax ci rajo ak aussi may wax ci journal ci biir loolu nag dafa am loo xam ne li man tamit dama koy wax en tant que ku bokk Sénégal parce que man it avant tout sénégalais la te it ganaar kenn nenoom ndax maa moom sama bopp am sama liberté waaye lu ñuy def lu ne ak responsabilité yi nga xam ne te yàlla dénk na ma ko samay mbokk dénk ma ko d'une manière valable war na aussi tamit bu ñuy wax ci Sénégal ma it war naa ci tey am sama grain de sel en tant que sàmmkat mais aussi en tant que leader càmm loolu nag su ma koy wax mooy ñu ngi jublu ci benn ci ci référendum référendum li man la ma ciy wax mooy benn damay wote oui ma wax aussi tamit képp koo xam ne kii neex na la te nga nekk ku baax it woteel oui éleveur waaw ak éleveur ak ku dul éleveur ak ku mun di doon parce que fi ma nekk nii Ismaïla éleveur mooy wax du conseil national sama xalaat dépassé na tey conseil national ci biir Sénégal ak aussi sénégalais yi nga xam ne ay ñu nekk ci bitte la te loolu li tax mooy ci rajo lay wax ci journal lay wax kenn joxuma dërëm fifteen lekk lu ma ko kenn ci sama ñàkk ci sama teraanga laa dund dund ma ci poosu kenn président Macky Sall ba ñuy def rencontre Koungheul laa ko gëj a joxante ak moom loxo te keroog it ñëpp gis nañu man tooguma ci tribune bi ñaareel bi aussi tamit euh, tey représenté na aussi éleveur yëpp ci biir conseil économique social et environnemental ma gis aussi lañu fay liggéey ma xam lu mu doon. parce que kon tey am na ay dossier de l'état yu bari yoo xam ne jege naa leen beneen bi ci topp it mooy gis nañu it fi ñu jaar ak nguur gi parce que amoon nañu jafe-jafe ci wàllu aliment de bétail organisation bi nga xam ne président de la république fekki si nañu ci ak xalaatu ministre élevage bi nga xam ne moom la denc ci proposition bi nga xam ne tey tax nañu denc environ de trois milliards te France CFA yoo xamante ni ñu ngi ci biir banque yi nekk ci banque crédit agricole yi nekk ci biir Sénégal département bu ne dencaana tey xaalis boo xam ne bi bu amoon urgence mun na jugal ci banque bi génnee ko dem jënd aliment de bétail ñëw dugalaat ko ci biir éleveurs yi te fekk sax ñu ci état loolu muy ndimbal beneen bi aussi tey mooy ranch de douille ranch de douille kenn ku ne xamoon na ne amoon nañu ci ay jafe-jafe ak ay problème mais yàlla dimbali nañu tey président dilloo naka éleveurs yi parce que moo jaadu te ñëpp am nañ ci mais yëmul foofu it ñu ngi koy clôturer beneen bi ci topp it mooy santiment bi nga xam ne sëkk naka ak ay sénégalais yépp am lu muy def ci élevage di def ci pêche di ko def ci agriculture di def ci environnement di ko def ci yeneen te loolu su ma ko waxee wóor na leer na que wax naa leen sànq conseil économique laa nekk dossier yëpp ak con lépp loo xamante ni dafay jóge ci état bi am na loo xam ni dama ciy teg sama bët ak yeneen ak yeneen kon bu ñu demee bañ jub si ci lii kenn ku am kaddu rek war ngaa mën a wax may ñaar kan na ñépp a xam ne avant tout Sénégal lañu am après tout Sénégal lañu am te ñu am war a am aussi culture que ne bu ñu demee ba ñu may président de la république ak bu mu mun di doon ñu jox ko mandat mu yëg légalement kooku war nañu ko mayaat deuxième sens pour mu def la muy war a def mu dem keneen ñëw man idéo boobu laa am pour que fii ñu nekk tey ak président bu mu munoon di doon ki fi toog bu ñëwee man moom lay woteel ci deuxième euh, ki nu ma tuddati deuxième mandat pour mu am ko man ci loolu laa nekk bu keneen ku ñëw aussi tamit ci loolu lay nekk parce que man sama organisation ak la may liggéey état lay àndal li des na mooy aussi xuloo ak xeex xuloo ak xeex dara jaru ko fi parce que nag kuy defar du toj te loolu yaakaar naa eh, eh, incha allah nit ñi ñëpp danañu war ànd ci loolu loolu moo taxoon ma ne woon tey danaa yëkkati sama kàddu wax sama position ci li nga xam ne moom euh, moom moom la ñu jub si moom moo jub si daal te aussi Ismaïla bi wax de nii lay faral di waxee ci kanamu président ak keneen ak keneen parce que man dama am sama liberté rek moom sama bopp dégg nga kon loolu moom moo indi woon tey man naa leen woo pour ma waxtaan ak yéen en tant que ay journaliste en tant que taskatu xabaar kat ñun ci lii lañu nekk man ci loolu lay débattre ci laa nekk ci lay dox ci lay waxtaan ak samay nit ko pour nañu voter oui parce que aussi tamit bu fekkente ne dem nañu ba ñu wax ne dañuy changer constitution bi te looloo taxu ñu yi nguur gi fi nekkoon beneen nguur ñëw ñu bañ a changer constitution bu loolu kon bu boobaa du am sens te kon te point yi nga xam ne wax nañu ne moom la ñuy changer liir naa ko liiraat ko seet ko settantal ko gis ne aussi tamit vraiment c'est très normal que loolu ñu def parce que ñu delloo si mandat président de la république ci cinq ans lu na war a mën a dëggal ñaareel bi aussi tamit ci yeneen changement point par point yi nga xam ne wax nañu ko ci yépp vraiment lu war a mën a ànd ak jamono ma daanale nag ci nit ñi aussi nañu gëm te amul kenn koo xamante ne kii mun ngaa yore réew de wax naa leen ko ci Europe laa jóge burki démb dégg ngeen éleveur européen yi la ñuy coow kon nga xam ne tey problème yi am yépp ci àddina bee la am te ñoom lan lañu fay coow dangay nekk éleveur ngay sàmm nga leb banque ngay liggéey di fay di liggéey di fay di liggéey di fay bi mu leer la yow danga liggéey ba retraité de fay ki lay remplacer ñëw di liggéey di fay kon nañu xam ne amul kenn koo xam ne kii war ngaa mën a def cent pour cent dégg nga waaye nag bu ñu amee aussi tamit ku mu mun di doon boo defee effort à quatre vingt dix ou pour cent war nañu la mën a comprendre ñu accepter la loolu